mbokk vision TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di kontaan ci yéen ñëpp ñu ngi nii ci état bu Medinatul Munawwara comme ni ngeen ko gisee nii lañ leen ko doon defalee daaw yàlla dogal ñu ñëwaat feren di leen ko defal kon di sant yàlla bu baax a baax mbokk julli yaa ngi nii ñu ngi julli tisbaar ba génn gis ngeen nii ñu ngi génn ni medine nag moom ujaaju Sénégal yëpp fii la ñuy njëkkee ndax ki bi tëdd muy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak dund bi nga xamante ni moom lépp ci dundam nga xamni fi la ko passé mo waral sénégalais yëpp bu ñëwé ak ñu bari comme ñom fi la ñuy kon ñu ngi ni di soga a suñu jullu tisbar jëre ngeen jëf ñu ngi leen di ci télévision TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di contane ci yeen ñëpp ñu ngi ni ci état bu Medinatul comme ni ngeen ko ni lañ leen ko doon defalee daaw yàlla dogal ñëwaat feren di leen ko defal kon di sant yàlla bu baax a baax mbokk julli yaa ngi nii ñu ngi julli tisbaar ba génn gis ngeen nii ñu ngi génn nii Médine nag moom ujaaji Sénégal yëpp la ñuy njëkkee ndax ci sallallahu alayhi wa sallam ni moom lépp ci dundam nga xam ne waral sénégalais yëpp bu ñëwee ak ñu bëri comme ñoom fii la ñuy njëkkee kon ñu ngi nii di soog a bare suñu julli jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bokk